bii nag góor ñee ko moom góor ñi dul sangu ñoo moom vidéo bii am na góor ñoo xam ne moom araamatan ndox ndox dafa araam ci ñoom sedd bii am na góor ñoo xam ne bala nga leen a sanguloo di nga rab sonn di nga rege di nga rab di nga raba raba ba mel ni ku yore rab bu nu laal ndox ci àdduna nga lal sa dara yu weex nag góor ñàkkat ñàkkatee fële lànk ne du sangu xam nga ñu ngi naan jigéen defar góor mais am na góor ñu naqaree defar jigéen mënu ci ñoom lenn ndax dañ ciy boole dëgër bopp dama yàlla baat ña ma ko war a wax bëgg nag boole karawu sikki mag bopp ak say pokkutaan ak sa tànki karaas ndax am na góor ñoo xam tànki karaas moom da leen a neex gis nga set góor day set tamit nag ndax amour bi góor bëgg ci kaw lal bëgg jigéen du ko fa yegg te bëgg jigéen ja di set noonu la góor war a mën a sete nag wicc góor da ngay sangu ba set di def ca parfum yu neex xanaa xamoo leen parfum bu neex day yokk mbëggeel am na jigéen ñu bari ñu topp góor ni ko katiw téye seeni parfum lañu leen noppi parfum yaa neex góor ga set góor da ngay set mais tamit nag sedd bi jot rek nga jël ndox ni ko araam ak yow bokkutuñu dara sa jabar wax a wax a wax ba sonn waaye jéggi changé leen xam nga nu ngeen ñu def bu seen jëkkër yi rekal ndox yi kalaasu ngóoja mbaay gi ñu ci am xam nga nu ngeen ñu defam di tàngalum ndox dafa seen nag di reete wut jàmm ju baree baree bare bare bu ñëwee ngeen mel ni ko yoru bébé bu yaboo ngeen di sangoondoo ci sedd bi de ak góor ñi ndax yow loo set set set set sa jëkkër boo lay daraay weex mu dikk ni ñàkk ñàkk ni ñoo ngi ko salal ba tànkami karaas sa xol bi di dagg nga bëgg nag tëdd yow calal ba bëgg sa jabar yegg la fu ne xanaa sa jabar moom du nit wala moom du dund ñu ngi naan góor bu saltee jigéen mën na koo defar dëgg la ndax jigéen lu mënul ci góor amul mais dafa am góor ñu neex a changé loo leen changé ñu mu yomb torop ci yow mais am na góor ñoo xamante nii changé leen yéen doo tëb ci asamaan see ku gën a yomb fa ñu téye la ñuy téye dëgër bopp biy bëgg a dee munoo ci ñoom lenn te nag xoolal góor gu ne leen nga gub sikki moom munoo koo gàddu di ko sangi ah munoo koo sangi te munoo koo poñe di xeex ak moom xanaa kay di naxtaan dugg ak moom ci biir néeg bi jar na sax di bulus de nga dem ba ñëw ma kot la ñuy bulus ma ak yow ba ca biir duus ba di bulus ba ubbi sas ba ñu xool nuñ koy gérer sangu di naxtaananteeg moom kese laa ci xam nag mais dañuy lànk nag duñu laal ndox ñoom it bëgg a jël fukki costume ak i veste sol ko di la bëgg a rey ku xet boo def seen karaw yi sa bokkutaan ak i sikkim ak yu bopp waaye tamit nag déedéet nag tamit góor gu ci sanguwut nag ci seddub ren bii tarkaale yàlla nañ ko fekk jàmm mais am na noo xam boo ko bëggee dundee sa soxna sa soxna si day daal di ngiis nag day jeex tàkk tàkk tàkk ba mën na ci amee feebaru xol ndax ñàkk sangu xetu nit moo foor muy bu góor ba nag muy bu jigéen ba xet moom dafa foor te lal dafa ànd ak wax dëgg yàlla nag xet gu neex nag lal dafa ànd ak xet gu neex di bëggee waaw eh, ku bëgg ñu yegg la fenn fi dangay set sangu ba set laa sa parfum bu neex su guddee nag bu ko defee loo soxla ci yow sa soxna dalay yomb waaye soxna sangu ba set dafa jéem laa defar ba sonn nga lànk ni doo defaru tey ji bala nga am na ko ñu xam bala nga xam ñoo naqaree defar xew am nga bëgg a taxaw génne leen yére ne la solal lii dañuy lànk ne la ngeen sol la li ma sol ma sol baax na déedéet bu leen ko jàppe noonu ndax yéen góor ñi xay na du ngeen xam li xew mais ñun jigéen ñi si biir dañuy jàngante suñuy jëkkër am na comportement bu sa jëkkër di yor boo génne jabaram la ñuy manqué de respect kenn ba sa jabar di def ci yow yenn yi da nga koy déglu ne tekk mais am na góor ñoo xam kenn du leen cotiser kenn mënu ci ñoom lenn dañoo leen neex la ñuy def waaye ñàkk sangu moom na ngeen ñu ci dimbali rek da ngay ñu ci dimbali rek nag wax dëgg yàlla vidéo yi nag sedd bi la sat la tudd di góor ak jigéen nag ñaare ko moom ñun ñëpp taman mii sax te laa bokk na ñëpp di sangu daal muy neex néegi moom daa ànd ak néeg bu set yaram bu set parfum bu neex ñuy bëggee xol yi mën a naat mbëggeel gi mën a yokk e dañoo bëgg lu set comme ñëpp nag am na góor ñu naqaree lijjanti